xam ne amaguñ ñaar fukki at dali nañuy loxoy élimaanu jëwriñ bi drapeau national ñoom lionceaux yi di waajal dem ci coupe du monde FIFA bi nga xam ne dina am ca Argentine ñaar fukki fan ci weeru mai jàpp fukki fenn ci weeru juin bii di ñëw muy jotaay boo xam ne Amadou Ba dal dinay fàttali ñoom gaynde yi valeur yi nga xam ne suñu gér yi moom lañ mës a jëmmal ngir dal di bu baax nation bu Sénégal xam nañ ni bu ngeen ñë bu ngeen di ñibbi fii di ngeen fexe xam bi di ñu ko andil wala di ngeen fa am taxawaay boo xamante ni ñëpp dinañ ne Sénégal gàcce ngaalama nañ ko def ci sportivité parce que sport la Sénégal liñ leen ràññee ci yar la ak teggin Sénégal li leen ràññee ci combat bu loyal kon jox nañ leen drapeau muy lu diis muy màndarga boo xamante ni tey réew mi yëpp ci wàllu football dañuy seen loxo. ñooñu Malick Daffy ñoom itam dal di nañuy xamle ne dogu nañu ngir defendre bu baax a baax couleur nationale yi. ñun suñu objectif du dem ko noonu pour voilà def ay loo xamante ne comme ni ñu jëlee kan bi gëm nañ ko bu ñu demee foofu noonu dañuy jël mondial bi ko fii Sénégal incha allah. équipe nationale bu Sénégal dina bokk ci ñeenteelu yoon ci taarixam phase finale bu coupe du monde ñi nga xam ne amaguñu ñaar fukki at édition 2023 bi Sénégal champion d'Afrique en titre bokk na ci poule bi ci noonu dina dalal Colombie Japon ak Israël comité supporter bi nga xam ne gën nañ koo xamee ci Alekaza tamit kon na ci ginnaaw gaynde yi